maam Cerno loxo ca kaw al ganta bi wante xa bi gade way na way gawade yara de Sëñ Mbàkke soxna gañu mu àndal naam gayanan naam gayanan gayanan xas di yara ku sopp borom tayib sa loxo ca kaw al ganta bi wante ta bi rade wayna way du yara bi sa isa jenn gaaña mu àndal def ñoom ñoom gayanan ñoom gayanan gayanan xas di yara ku sopp si

yaa jara way yaa jara kañ a yaa jara sargal laay laay la la rabban coy si an bor yàllaay boor bor yàllaay boor bor yàllaay boor maam yàlla maam yàlla maam yàlla bu wa ma buri borom njariñ li moo jara tantal bu wa wa simbo wa wa wa wa la jëngo loxo ca kaw maalikun la na rap ak màkk na màkk na fema mu def ci man woo ci man may màkk te naa te ne ndaw dëgg la dëgg la ñi fe mag ñi fe mag ñi fe mag ñi fe mag ñi fe kaw ku gàtt laa woon ku nu jébbal waa ji ma ma ne cas teg ma ci mbàggam may wax xam ne ca kaw dëgg la Hey, well, well, well, well, di ci suuf ma ma ne cas teg ma ci mbagam may wax ak ne ca kaw dëgg la dëgg la di ci suuf ma ma ne cas teg ku sopp Serigne Sall Mbacke sa loxo ci mor ma gaal aw ma mbaal gu ma yor ma xëy ma jow gaal gu fee say gën gaañan naan awulaw di di yëmu du ma jooy la ca dina fala ak dara musuma naqari loolu nag amut moom ku dara musa naqari ku dul sëñ Tuubaa fi ne boo jàngal alxuraan yeneen yu bare bare bare yàlla da leen a sanctionné ci alxuraan mooy dañuy def benn erreur yàlla ni leen eh lii bu leen ko defati de ndax ma wala bu ngeen bëggatee nangam di leen wax incha allah ndax man maay dogal yeneen yu bari mais sëñ Tuubaa nee na man loolu maa dal yàlla musuma wax lu tax nga def erreur bi ndax musu قائلا ان

ci waxtaan wu am solo yi nga fi amal ñuy jottali ay kàddu yoo xam ni xam naa ni du bëri ay kàddu yu cant la ak kàddu yu ñaan kàddu yu ñaan yi lañuy ñuy njëkkee di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Basir suñ borom guddal fanam wéral ko ci barke Seexul Xaddim ñuy ñaanal sunu sëriñ sunu wasi la muy sëñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma sunu borom guddal fanam wéral ko ba yéene jëm am liggéeyal maamam ci dëkkam bu tedd bii sunu borom kattanal ko mu defe ko ci lim ko soobe noonu la ñaanale sunu sëriñ sunu xarit sunu wëllëre sëriñ Alaaji Mbacké moom sëñ Abdoul Ahad Mbacké moom sëriñ Baara di ñaan suñu borom guddal fanam wéral ko ci barki seexul xaddim bis bi nag ren dañ cee am taw féex ndax yàlla dogal na ni a ah, nekkul sax loo xam ni nan ko daan waaje dëgg-dëgg waaje nan ko ren waaye li naan bisu Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am moo feeñ jii kon lu def lu dul di sant sëriñ Touba bu baax ci xéewalam yu yaatu yii ak mayam yu bari yii munu wàcceel bis bi nag ma cërale woon ko ma mbay moom Serigne Cheikh moom Serigne Modou Faty Khary muy ku baax di ku nu jàpp di ku nu yëg bis bi nag li tax ñu cërale woon ko ko dinañ ci dem tuuti muy dafa nekk nit koo xam ne danoo jàpp dinu ñaanal dinu jàppale ci kàttanam ndax mambay ñun amuñu lu dul sunu waajur lu ne toog ñuy ñaan suñu borom guddal fanam wéral ko ci barki seexul xaddim sunu waajur yi nga xam ne amuñu lu dul moom yéen boroom dogal am tawat bi ko daloon ñuy ñaan yàlla teggil ko lépp ci barki Seexul Xaddim ñun ñii di ay doomam ñu lottoon ci loolu bu mu wootee fii dani nan ma ko indil fële ca Tëngéej lépp lu ci war dinaa ko def te ba mu demee noonu la demee lépp lu ci war def na ko te ñàkkuñu ci dara loolu nag rëy na ci ñun réy goo xam ni waxuma la bis sax waaye lu mën a am ci àdduna mën nañ ko koo tudde ndax ñun amuñu lu dul suñu waajur kon soxna si a ah, sant nan la bu baax di la ñaanal ci sa barkeb maam Cheikh Massamba suñu boroom guddal sa fan wéral la yokku la ci barke Seexul Xaddim di sant nag képp koo xam ne ronu nga tànt bi muy góor muy jigéen di mag di ndaw ndax ñun amuñu lu dul fii ñu dëkk te yàlla dogal sunu dëkkandoo yi nekk nit ñu baax nit ñu nu jàpp mën naa ni ñi nga xam ni ñoom laa maaseel jamono ñu ci bëri sax maa leen féeteeg mag waaye yàlla dogal na ni fu nekk ñoo fay bokk nekk ñu jàpp ma lool ba lépp lu ñuy wax bala ñu cee def dara dañ naan nan xaar ba xalifa ñëw loolu bég naa ci mbégte moo xam ni suñ boroom rek laa koy seedeel te ma leen di ñaanal lépp loo xam ni yéene nañ ko ci gox bi ñu dëkk suñu boroom kàttanal leen dooleel leen ban def ko ndax juboo gi ci koñ bi ak déggoo gi ci koñ bi yàlla bu ci seytaane amu yoon yàlla nañ gën a jàppante gën a yëgante lii fi am yàlla bu ci dara dox ci barke seexul xaddim ma leen di dolli rek ni leen ngeen gën a fonk seen bopp gën a xam li ngeen doon xam ni ndaw mooy doon magu ëllëg te yaakaar yëpp mi ngi ci yéen ñu leen di ñaanal rek yaakaar yooyu am ci yéen comme que ñu dem nañ ba léegi daanaka mag gi dugg si na ñu jiital gone yi di leen ñaanal di leen dolli ci barki Seexul Xaddim xam naa dama lay yemale foofu sama kàddu di ñaanal Cheikh Abdou Lahad mbarki Gaynde ma mu gudd fan lool ci barki Seexul Xaddim di ziar sama xarit yii ñoom ñi nga xam ni ñoo ñëw pour jàllaleel ma bis bii Murit Info maa ngi juum waa Murit Info nekk nit ñu baax ñoo xam ni